哎呀！ la Goodbye. goodbye. yaa la la kaddu gi am na solo lool ndeysaan ndax yow de da nga fee mënta ñàkk ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal sa fan ndax bari na tout tànk yu bari ci dëkk bi yaa leen tudd waaye nag sëy yu bay na moo leen takk ci dëkk bi moom suñ seex fay waaw danoo xamante bu yàgg loolu démb la kon yàlla na yàlla wéral sa cër kon su ko defee bàyyi ngañ waaw sëñ ngañ dañ lay jox kaddu gi rek ñeenti minutes ndax kat Liduf duuf ci nag bi yëpp daa xajul ci cin li dañay jox ñeenti minute rek nga weele jataay bi bàyyi ibra jërëjëf waaw xam nga programme beexat rek waaye li may def yaa ma ko dax yàlla yàlla wéral sa jàmm seen bisimilaa sëñ gañ barkeb aji màgg ji barkeb aji àgg ji sidi ibrahima fall xalilu leexi dalilu siraajullaahi siraajul awliyaa u siraajul asfiyaa u nuurul xaq baabullaahi baabul xulóomi baabul jannati baabul muridiina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi siyaar bu baax nag waaye di tub ci kàddu yi ndax suñu kilifa bu teewee jataay bi rek maanaam um, war ñoo jël kàddu waaye ndigal la ci ñu jël kàddu di siyaar sëñ Alioune Badara Ndim bu baax a baax waaye di siyaar sëñ Maamun mii nga xam ne maanaam man ak moom danoo yàgg lool barke Cheikh Rafal lépp di Cheikh Ibra waaw ndax moom mii du fi toog boo leen kuy maamam te Cheikh Ibra daa defar maamam nag baay seex Ndaw waaw ndax Baye Cheikh Ndaw mooy turandoo Cheikh bi njëkk waaw mu juddoo ci keppaaruk Cheikh Ibrahima Fall ñetti fan la am ci kaw suuf am koo xam ne daa gént ñu ñu tegtal ko sëñ Babacar mu ñëw ci biir kër sëñ Babacar Ndaw ñu ne ko daa génn mu ne day lu mu fi bàyyi ñu won ko Baye Cheikh Ndaw mu jébbalu ci moom ba ne Baye Cheikh ba mu ne ko nangul naa la ko daal ci bëxam kookoy maamam du fi toog boo xam leen kuy maamam ki daa waroon na ñëw ñu koy teral ngir maamam ndax Cheikh Ibra nag waaye xam na ne mbir mi Cheikh Ibra ci may dara ndax sëñ ma jaw paxa sultaanu haarifin ku ne xam na ko maanaam day dem àjjana ci kàttanu Serigne Touba ak mbaaxam waaye kër gu mu dugg rek bu gisee mu rafet ba yéem ko lool su laajee ko moom kër ñu ne ko Ibra mu ñëw ci Serigne ko may yi nga may Ibra Fall ëpp na de may yi nga may Ibra Fall ëpp na de waaw damay dem àjjana ci sa kàttan ak ci sa mbaax waye keur gu ma gis mu rafet rek suma laaji ko mom ñu ne faala ko moom xanaa kon ëllëg yomal xiyaam mo ri sedd sëriñ mi ne ko sallaw yeen ñëpp am ngeen ci de waaw Ibra Fall may mako ko da ko liggéey mu ne ko nang ma defal tank bu mu tok manam ma tek fa sama boss sëriñ mi ne ko lool mom fatna fu mu jaar ma waa kërëm ba bënd ba wuri nga do ko jall mu jug bindib lettre Cheikh ibrahim Fall daan ne Cheikh Ibra li ma nar la lay wax bu ñu tek jinne ak malaayika teewee man ma jëw baxa soxlo ma ci la ma jaamu yalla dara Lama def ci lu bax soxlo ma ci dara lama ma lama wor nang ko tege nële nga taxaw ci penc ne ma jow baxa sama xarit nga bind ko leer ne ko fala abil muridina wa khaidahum a cheikh ibrahim fall muhjila muhjili sawil ak wal walan fall haasihi labbayata fa ahmaluhum bi niyaati sama way wi mang ko jimi ci ki nga xamne moy mooy murid cheikh Ibrahim fall mi nga xamne mo raw dan na ilayka law dara nasakhilaka najaa'ika naa'un wa subulun ila sabilika ki xam Cheikh Ibra Fall waaw neena Cheikh Ibra Fall yow rek la xamne sa dundu gi ba dundu gi daj law dara na sax xilaka ay bu nit ñi xamol li nga yor manam bu way bu nit warat rek da wara ñew nga won ko li nga yor muy Cheikh Fall dan ne salamun hakatul samsun fi dawxihi ata Salamun kama sada iya fi khalilaka laka dan ne Cheikh Ibrahima Fall ma ngi lay nuyu nuyu bo xamne ne na mel ci yow ne ku tawaton ba ñepp yem ko ba ñepp ne ba ñëpp defe ne faatu na am ku ñëw jox ko garab gi rek mu naan garab gi wér nee na ni ko garab gi yéeme xol bi ni muy sedde noonu sama nuyoo bi yàlla na yàlla na sedde noonu sa xol dan ne ayaa buufu yow ibrahima law laa xasadatan lari naa la xaaloo attan li mani la ka kii xam Cheikh Ibra nee na maanaam Cheikh Ibra Fall ci arab mooy ñu def langa buri ñu nekk ci langa bi yëpp kenn gisu ko mu ne Cheikh Ibra yow li yàlla nëbboon yëpp yow yaa ko gis law laa xasadatan law laa xasadatan lari naa la xaaloo bur woon soxoor ak iñaan lu nit ku baax yor rek daa war a ñëw ne yëfi Seex Ibra Fall laa yor waaw li ku yor lu baax rek daa war a ñëw ne yëfi Seex Ibra la yor sëñ mu lay bu so ne akrim bihi min muridin xaasa martabatan la siyaax barran sa dooxan bil xudaa kalifa yéen murid digal naa leen ngeen teral ñu ne ko ku nuy teral mu ne Seex Ibra Fall mi nga xam ne balu baax sa soo ci sunu maam Adama jaar ci rasulullahi ba tey jii ñuy wax nii ku baax rek Seex Ibra tax nga baax waaw daan ne ku seex rek Seex Ibra tax nga seex daan ne barran ku baax la sa dooxal ku dëggal la kalifa bil huda ku jeex tàgg ci njub la daan ne xat bàyyee xasiyax xit man xaadiman fatina fa ahkama ma bi taqdimi mun sarifa waaw daan ne Seex Ibra Faal ba muy jébbulu waaw ca xaddim la jébbuloo boobu moo tudd xaadim waaw kon turu xaadim la aji liggéeyal Sëriñ Tuubaa ji mooy Seex Faal Seex Ibra day dox ci njaareem am ku ku set daat koy garañu ku maam Seex Ibra daat ko jaajëf doom mu daal ne ko man Cheikh Ibra ko jaajëf Cheikh mu daal taxaw Cheikh ne ko noo sant mu ne ko Bousso Cheikh Ibra ne dëng ba ci yàgg ne ko kon nag Bousso daan ne ko ndax mën naa laa yónnee Baye Mbaye Ndiaye ngi ci gannaawam nee na maa ngi naan waaj yàlla bu mu bañ mu ne ko man Cheikh Ibra de bu ma yónnee ma dem waaw mu ne ko mag su ma yónnee ma dem mu ne ko animateur la téere bi nga dem ci marché ndu ba jóbbee jël na ma nangam te ñëw mu jox Cheikh téere bi ne li tax ma ne ko kon nag Bousso xool naa ki njëkk sant Bousso ba ki nar a mujjee nar a sant Bousso gis na ko jataay bi ndakate danoo jëndoon maam ma santale ko Bousso moo tax ma ne ko kon nag Bousso waaye moom mi de war naa sant juróom-ñaari jéegu yi mu dox tama tax tax nañu jéggal juróom-ñaari maamam daane gees ne ko mbay jaay mu ne ko Fall xanaa xamoo ko dox juróom-ñaari jéegu tama tax ñu jéggal si juróom-ñaari maam barke Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mamoun maa ngi tub bu baax nag waaw maa ngi tub bu baax ndax maanaam yow da nga maa dimbali yaag sa bàyyi njaga maa ngi koy ñaanal sa borom yokk ay leeram ndax suma ma jël kàddu gi di wax rek sa bay njagaa ma dimbali ak yow mi tok kon ma ngi tub bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fa yalla fa yalla ma ngi jéglu baax na la sif xam nga lu tax ma la naa la siif ngay dafa ubbi bis bi ta dama bëgg serigne Mamoun mi ñew fi serigne Mamoun mi ñew fi ci bis bi France la jógee lu ko andi bisub Cheikh Ibrahima Fall bii bëgg nag balaa ubbi jataay bi barke Seexul Xadim am daa am sërite bu mu ci xarifa général de sëñ Amdi Modou Menda Fall bi mu ñëw da koo tàggu mu am lum ko wax am lum lu yéenee loolu nag damaa bëgg ñu tabbi ci loolu damaa bëgg na ñëpp ñëw ku ne na jox na ma fekk fi jox ma at cent li la addiye maam ku bëgg sa mbir baax ba faw na ñëw fi fekk ma fi jox ma adiyee maam Serigne Fall cent laay laaj cent cent lira mu ubbi jotaay bi cent rek laay laaj cent lira. ku yaakaar ne nag du ma teel li nga yor. jërëjëf Bara Murit soxna yi da ngeen ci ci ngeen bokk rek ñëw leen na ñëpp ñëw. bëgg a jariñu tey ak ëllëg na maa ngi ñaan ku ma fekk fii jox ma ko yàlla na nga yokk ba yëg ko ci barkeb Seexul Xadim Moustapha dañuy commencé rek na ñëpp ñëw waaw am na ñu des de murit am na ñu des de. bi moom bu doon lu ma la de. moom laal suuf. ilaahu kalimatillahi al-ulya. moom laal suuf. ilaahu kalimatillahi al-ulya. moom laal suuf. ilaahu kalimatillahi al-ulya. loolu dong mooy liggéey bi. loolu nag gis nañ ci mën a jëm. jëmul fer gis. fa yàlla li fi nekk daa tuuti liggéey bi moom ñëpp ñew nañ wa kon commencement baangi ni nak dama bëgg ku yoru xaaliss nga dem jëli xaaliss ñew barke cheikhul khadim dañuy fanane joxe ba bër set ki ñew fi da bok ci njabootu cheikh Ibrahima Fall tay dañ ko wara teral bu démé ci khalifa sénégal de Baye Fall nako kat li moy sama andi moy sama addiye wa tirké la ko jox kon mourid na ñëpp tok ta waj ta déglu ko nak ma ngi jégul dama jërëjëf Fall jërëjëf Baye Ibra sa jogin amna solo wa kumba yow ni rek nga meuna mel ndax am murit nga suko defé na murit yi defaraat bi rek kenn ku nek tok fa nga tok kuy daanu bul dam saisi na nga mbëkk mir bi daanu nak ci daanu lañ ci gëna soxla kuy daanu na ngay laal poos tay joxe adiya waaw bu kenn yak jang yi sëñ pap Matar président fédération teew na ci jeetaay bi nang koy siaré bax diko ko jox wayam tay ñaan yalla naal yi mu naal ngir sénégalais yi yalla ko yalla kattanal te dolel ko ba mu agalé ko kon señ Matar jërëjëf su ko zikrullah ci kanam tuti bu jëwrin maamu ndaw noppé rek serigne Nabi Kara mi ngi fi ak Baye Rijaal ak junjuñu mam Cheikh Ibrahima Fall yi ñu dugg ci at yu lepp di bes, lepp di maji maji ci barke mam Cheikh Ibrahima Fall kon nag sëriñ bi ñu jox sëriñ Mamour Ndaw rek mu wéyale programme bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di jiital ci nuyoo yi ak ziar yëpp cheikh mohamadul muntaxa mii sëriñ Touba Seexul Xaddiim di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax te dolli ko wér di sàkku ci mbooleem jullit ñi fi teew ñëpp ñu ñaanal sëriñ Muntaxa yal na yàlla dolli leer ak i ngërëmu sëriñ Seex jëm ca fee mu nekk te sans borom wanale ko maamam ju baax ja nga xam ne moom la fi wóotu woon muy maam Cheikh Ibrahima fal di bu baax mbooleem kilifa yi fi teew yëpp tàmbalee ko ci kilifa diine yi fi teew moo xam ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk tariixa bi waaye ñuy ay jëwrin ak ñi nga xamante ni bii itam ñoo bokk diini ji di ay jàmbaar lool mu mel ne tàmbalee ci ki bàyyi ko Cenaba te léegi la fi bàyyi ko kilifa gu mag googu ñu ngi koy ziar di teg nuyoo xalifa ba ci loxoom mu jottali ñu ko ak mbooleem njabootu maam Alaaji Malick gi fi nekk yépp ak mbokk yi bàyyi ko ca euh, ñaseen ak mboolem laayeen ak tariixa yépp ñu ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax. di siyaar nag sunu kilifa yu baax yii ñu ngi koy tàmbalee ci sëriñ xaadim ñang mii ma dendal sama xarit lu yàgg ñu yàgg ànd ci yu bare bare bare bari moom mii sëriñ Modou Faa Jama ñaŋ mooy maam sëriñ Modou Faa Jama ñang nag góor yàlla la woon goo xam ne ci keppaaru sëriñ Touba Seexul Xaddim la nekkoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi siyaar bu baax maam Cheikh joob mii di sëtub sëriñ Saalihu Fall bu Daaru Xafoor nga xam ne waajuram wu jigéen sëriñ du Fall ñu koy wax sëriñ Abdou Ndakaaru moom sëriñ Saalihu Fall moo meññ waajuram ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar Cheikh Ibra Fall mii sëriñ maam Cheikh Fall mii moom itam sëtub sëñ Mor ngoone Fall dégg ngeen Cheikh Ibra Fall sëñ Moussa Ka naan mu daal di dem ba ndànd faal jàpp fa doomi ngóone faal def ko ni ab làmp bu mu bu ñu taal moo fay fexe mooy maam kon ku am cër la ci yoon wi ku am cër la ci yoonu seex Ibra Fall baa ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax di siyaar bu baax nag mbooleem njabootu seex gi fi teew yëpp su ma jëlee nuyoo yi ak ziar yi teg ko ci loxol ñoom sëriñ xaadim ñii ak sëriñ Ousseynou Diop danañ yóbbaale ñëpp di njabootu Cheikh Atoumane Diop danaa ci dikk waaye di beral nuyu ak ziar jëwriñ Serigne Mor yaay mi nga xam ne euh, yaakaar naa ne taxawaayam tey feeñ na ndax Baye Fall yëpp amel nañ ko jukkal ndax sunu jéego yi gannaaw yàlla yonente bi moom moo ko doon coordonné waaye di ci ziar bu baax sunu sangu ba baax bi nga xam ne tey yéene moo doon mu fekk jotaay bi muy Serigne Manel Fall mom Serigne Saliou Fall da naa bima ñëkke jokk ak yéen mo fi nekkon jox ma leen téléphone Cheikh mudou Moussa fallay ma ma nga ci Amérique euh defana amoon na yéene lool journa Zikrullah la mu téewon motax yitte yi bari xaw ko teunk ñu koy ziar bu baax baax di ziar jëwriñ ni Serigne Touba ji Serigne am digey di Mouride Sadikh bo xamné boko ne boo ko nee jàkk xam ne Touba moko ko fal ndax. murit maanaam jëwriñ dëgg-dëgg day woyof ndax rëy mbalaanum yàlla sëñ Abdou Sakkoor ne ku ko sàngoo mu lakk la waaye woyof gi ne ci moom nga xam ne buñ la nuyoo leeg moom buñ la lewul mooy jëwriñ ni sëñ Tuubaa ji sax doo xam ne moom ndax bëgguta doon dara lu may ab taalibe noo ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax di sant baax di ziar bu baax a baax nag imaam Cheikh fay ndax mooy imaamu kër Serigne Touba léegi li mu wax ci Cheikh Ibra sant nañ bu baax a baax jërëjëf yàlla la sama am Cheikh Ibra taxaw di beral nuyo ak ziar baax sëñ Moustapha Diagne mii nga xam ne moom muritub sëñ Modou amin Fall la Cheikh Moussa Falilou mooy buntam moom sama xarit la lu yàgg xam naa ko bu baax ñu ngi ziar bu baax di ziar sëñ ngañ mi nga xam ne waxtaan wi léegi mu def moom mën naa ne rek ngañum Baye Cheikh Ndaw moom Baye Cheikh la bëgg ci xol bi waaye nag jërëjëf bala yàlla xiree ci group bu njëkk ba noo ngi ziar bu baax mboolem ñi fi teew ñëpp di sant bu baax nag sunu wayjur bu baax wi suñu aasu baay aasu ñu ngi lay ziar bu baax jërëjëf ci taxawaay bi ñu ngi lay sant bu wér di ziar soxna yi nag di dajale nuyoo yi ak ziar yëpp teg ci loxol soxna maam Faati Lam moom Serigne Mourtala Mbàkkeem Serigne Touba Cheikhul Khadim nga xam ne moom it liggéeyub Touba ci kanam. ak taxawaayu murit yi ca senegal yaakaar naa ne murit yi ràññee nañ ko ci lool suñu borom dogal mu nekk fii ci barab bi di beral nuyu ak ziar mboolem kilifa yi fi teew yépp di leen sant bu baax ci taxawaay bi ah, xam naa waxtaan wi Serigne Aline Badara Ndim xam naa sax moom moo waroon ubbi kàddu gi waaye nag daf ñu koo delloowaat moom nag Cheikh Ibra Fall moo nu boole moo tax moom nuyu ko mooy nuyu sama bopp sant ko mooy sant san bopp ndax jotaay bii ñuy def ca Lamp Fall mu jës bu murit ñu ciy waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall te murit yu bëri ràññee ñu ci Cheikh Ibrahima moo ko boole. 2014 la jotaay ba juddu ci ndigalal Serigne Cheikh jëm muy Cheikh loola nag mooy dox ba tey jii kii fi nekkal Cheikh Ibrahima muy sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda yeesalaat jotaay bi. yeesalaat jotaay bii bokk na ci seen jotaay bii mën na koo firndeel yéen de war ngeen a sant bu baax ndax am na loo xam ne Seex Ibra defal na leen ko am na ci ay benn benn yu ko xam ndax waxtaane naa ko ak ñoom ci bu néeg am na ci ñoo ñenn nit ñoo xam ne teg nañ seen bët waaye tey nag dafa jot sëkk ñu génne ko ci mbooloo mi maa koy di suñu xaaj léegi لتخ بأدي جي داجالو لغي مانا ندون اب ليم ناخ كي في نيكال شيخ لا جيم تي بيس دو توت يينا واخني بروم لاي تولول تي بون ديمي سينيغال تي كي في نيكال شيخ نكو وا استانبول يا ووتو وون تاغا يابالون لو لي لن جوخي كو سانيون مو دون اب ليم ناخ شيخ ريول في موم ناخ با في مو تد مو داك جوخي اديا lu mu gàtt gàtt gàtt kii fi nekkal Cheikh Ibra Fall ren dajale na lu mat 17 million gannaawu màggal te li ëpp ci barabu Cheikh Ibra Fall la bàyyi ko dem ci ki fi nekkal Sëñ Touba ki joxe addiya ba tëdd sa bàmmeel du joxe addiya nag ko mën ci joxe addiya kon nag Cheikh Ibra dara rëyul fi moom waaye waaw leen góor li tax ma wax ne nag am ngeen tawfeex mooy xam ngeen ne àddina bi dafa tëju woon ndax li ñuy wax coronavirus de feebar boo xam ne suñu boroom moo ko fi wàcc mu daj àddina kap fépp di ko dund biir réew mi ak bitim réew ñu dem ba àddina bi jaaxle ci ñu arrêté ndaje yi ak xew-xew yi ku ne xam na ne ay weer ci gannaaw lii mënu leen ko woon jort naa lool de ñu dem ba muy wàññeeku te yàlla na dem ba jeex tàkk te àddina bi yépp nag du fii dong la daayira Seex Ibra am de déedéet du fii képp la ay Baay nekk Baay Faal yi bëri nañ ci àddina bi yaatu nan te yéen am na ci ñooñ fu ne dem nañ fa door a fii am na ñooñ daal jaar nañ ci ay barab door a dëkk si defe naa Istanbul kon dund ngeen ak Baay Faal lu baree baree bari door ñëw ci réew mi kon xam ngeen ne yaatu na waaye bu ñu defee benn sondage rek ñun nga xam ne en tant que ñu yor communication lu jëm ci njabootu Cheikh Ibra Fall ak lu bàyyi ko ci njabootu Cheikh Ibra dem ci murit yi ak luy dox diggante murit yi ak Cheikh Ibra Fall te sëñ Cheikh jëm moo ñu ko santoon sëñ am ni moo du benn ñëw dëgëraatal loolu gis nañ ne lu ubbeegul li ubbeegul yéen lañ xam ci ñu njëkk sant Cheikh Ibra Fall benn ñun ñii tam suñ borom dogal ñu yor lu bari ci liggéey sëriñ bi di génn ak moom ci biti sëñ bi dañu ci sant dañu ko sant nga xam ne bi ñuy mujjee génn ci ndigalal sëriñ Cheikh Jëmmu Fall lañ génn demoon Suisse côté Genève ak Lausanne yooyu jóge fa dem Italie di waxtaan si sëñ Moussa Fane sëñ Abdou yaakaar naa ba dellusiwaat loolu war naa mat ñaari at daanaka jege ne ko boobaak léegi génnaatuñ ci réew bu dem fenn bi ci des mooy kii fi nekkal Cheikh Ibra Fall gannaaw bi sëñ seex jëm mu demee Cheikh Ibra jox teg loxoom ci liggéey bi ci loxoom mu war a wuutu tey Cheikh Ibra ci kaw suuf doon Cheikh Ibra mu sotti di sëñ Modou Fall nga xam ne Cheikh Ibra waxoon ndeyam na ko Modou Fall Mbenda benn la waaye dana barkeel barkeel mënut a weesu tey njabootu Cheikh Ibra Fall gépp ngi ci gannaaw sëñ am ni Modou Mbenda kon bu toogee di wuutu Cheikh Ibra Fall tey xamuguma ci àddina bi li may wax nag en direct àddina bépp nga may seetaan lu ma wax lu amul te lu ma leen nettali lu ma mën a teg sama bët lu ma mën a waat la xamuguma bi sëñ am di Modou Mbend toogee xalifa ak léegi xamaguma benn activité ci biti bu amagul gisaguma ko gisaguma itam kenn ku génnagul dox benn yitte ci biti gisaguma ko maa ngi door teg sama bët ci keroog bi ma ko tàllalee maanaam këyit yi nga xam ne moo jàppandi ngir ñu fii ci réew mi keroog am na ñu ma déy na ma xanaa day lii mooy lu njëkk ci jotaayub sëriñ bi sëriñ bi jox leen digal ngeen dem dellusiwaat kon moo tax ma wax ne su ngeen xamoon li ma xam bu ngeen xamoon li ma xam te xam ne taarix da koy nettali ci ëllëg ci ki fi nekkal Seera rafal di doora tok ci jotay bi di ngeen fakku di ngeen fakku ñaraasu ñaraasu fexe mu jot ci ndax li tax moy manam azar ñi gëmul yalla ko fi indi bu ngeen gisee ma ma wat ne murid yi nañ taxawat ñu yokk jaayante bi mooy ci Cheikh Ibra ci toogaayu kii fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall ci àddina bi yëpp loolu nag doonut loo xam ne dañ ko war a fàtte mbaa ñu koy wax jàll dañ caa war a taxaw ndax lu taarix di nettali ëllëg lay doon xam naa ñu bari ñoo xam ne ci àddina bi jàppoon nañ jotaay ngir sant maam Cheikh Ibrahima yëngu-yëngu yi mayetuñ leen ñu daje ñu fomm gisaatuma ñu ubbi ba tey gisaatuma ñu def ko donte na ñu ngi waajal waaye xëy na amagun yenn autorisation wala yenn eh, maanaam ndigal pour mën a daje waaye première ndaje ci sant Cheikh Ibra Fall ci àddina bi ci bis bu toll nii ci ni ngeen ko daa defee maa ngi ciy door a teg sama bët fii ci Istanbul ci ndigalal ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima kon nag loolu taw tawfeex la joo xam ne Cheikh Ibra dimbalee na leen ko waaye faaw nu xam ko bu baax a baax a baax kon sëriñ baa ngi leen di nuyu sëriñ baa ngi leen di sant sëriñ baa ngi leen di gërëm sëriñ baa ngi leen di ñaanal waaye mu ngi leen di dollee ñaax kii ngeen di wone muy Cheikh Ibra Fall nga xam ne moo ko teg feebu mu toog tey Cheikh Ibra day daa am lu mu nekkoon loolu sax mooy thème bi nga xam ne ñoom Serigne Cheikh ñii wax nañ ne naa ci waxtaan tey gannaaw bu ñu ci dëppook mbooloo mi te mooy lan moo di ak Baay Faal euh, sëñ Cheikh jërëjëf yow dey sa taxawaay rafet ma lool ndax léegi la ko murid yi waxtaane waaye nag sa maam ju baax ci sëñ Saliou Fall dey soo dee waxtaanee Baay Faal boo jëlee sëñ Saliou Fall teg mu mat sëkk Cheikh Ibra Fall ndax maam Amadou Fall roqee na bari lawul waaye barkel la na su ma nee bari lawul nag mooy ñaari ñu góor rek la ko yàlla dénk ak kenn ku jigéen Cheikh Ibra Fall mi ngi gane jamono njare kër Saali ci atum 1855 senin Saliou Fall sa mam mi gëna jamono wak mam Cheikh Ibrahima Fall bayam tudd ko mam jai Ngone ni yaay bayam mi ni yaayam bokk ak Ahmadou Roqee bokk ak Roqee Ndiaye mi jur Ahmadou bayam ndey ak bay sa mam ñu tudd ko Asta mamam ki njare ki wak seen wayjur nak di mam Ahmadou Fall Roqee ya jóge njabi ñëw dëkk si jërëjëf mu ngo maam Saliou ak Cheikh Ibra ci seen i tànk la seen bàyyi génn àddina Ahmadu Roqee ñu denc ko ca gentu kër Saali maam Seynabou Ndiaye mii seen wajuru jigéen di nitu yàlla bu mat di waxtaane ci jamono ji ngir jigéen ñi mën a roy ci soxna su tedd soosu maam Seynabou Ndiaye nga xam ne ku ñuy wax Balla Fagué moo ko jur ak maam soxna la Njaay baayam daan jàngale alxuraan ci njarawaat bu masaan génn mag ñi nee nañ ma maam Seydou mu Njaay téyel dongo yi ñuy tari alxuraan nday Seex Ibra Fall Seex Ibra jànge foofee ci diggante njare wàqi ak warat waaye bi maam Ahmadou Far roqee génnee àddina te booba Seex Ibra ak Sëñ Saaliw tu tànk leen ci saahir seen bàyyi yaru leen ndax li tax mooy daa teel a dem seeni nijaay yi leen yar ñoo leen jàngal ca njare ba maam Seynabou bu liggéeyee la lañuy wax muuru ba noppi ni ko borom këram génn àddina muuru ba mu noppee càmmiñam lañuy wax wax faat ma na bu njaay nañ ko wutal foofu àgg àggale ab liggéeyam ndax nitu yàlla bu toll ni moom wóor te mën a toog rek te amul ko ko denc ñu jël ko jox ko guñ gu ñuy wax maam Issa Alima Diop ci dëkk bu ñuy wax Bédal Diop. mu am ca ko ñu wax maam Astou Diop mooy càkku maam Seydou Mujjee maam Astou Diop moomee ba matee samp ba mu matee dem kër di doy maam Seydou Mujjee nga xam ne moo Cheikh Ibrahima Sëñ Saliou Fall ñoo bokk ndey waaye bokkuñu bàyyi moom Issa Alima la bàyyam tudd ca Belel Diop Louga ñu dëkk Louga xam nañ Belel mu matee dem kër moom maam Astou Diop ñu dénk ko Serigne Darou Assane Ndiaye jàmbaar jooju am ca Serigne Ousmane Ndiaye am ca am ca sëñ Ibrahima Astou Ndiaye am ca soxna bu sa Ndiaye. soxna bu sa yaay mat a dem kër ñu jox ko rakki sëñ Tuubaa ñu ñuy wax sëñ sëñ sëñ Balla Coro mu taawloo ku ñuy wax sëñ Abdu Mbàkke Mbar teg ku ñuy wax sañ Bay Mbàkke Jaaxal Cheikh Ibra ak Sëriñ Saaliw nag daal nag dund foofu ci njare jànge fa yaroo fa samaam sëñ Saaliw moo njëkk a teg bët ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nga xam ne bu masaana tëdd ak Cheikh Ibra Fall sëñ Touba daan leen tiim xëyee sa maam di ko xibaar Cheikh Ibra Cheikh naan ko boo ko gisatee dëppal ma tànk ba noonu lañ nekke ba maam Cheikh Ibrahima Fall dig ba jot sunu borom wax ko xamal ko si Cheikh Ahmadou Bamba mu jóg Cheikh Ibra bi muy jógee njare jubaliwul mbàkke kajoor de dedet Cheikh Ibra dekk bañu sinlekan wax siin sinlekan la jëkke waw sin lay kan cikau fay dem situ fa jëm ju dund ci kaw suuf waye leer gem gis bam sanni ko sin lay kan ci armée la ko sanni armée la Cheikh Ibra bim exé sin lay kan ci armée la jubali fanan na fa ba def fa lam doon daj du mom set muy doon seet mu xëy waxtaan sëñ muru maram gan Cheikh ibrahim Fall neena ci guddi googee lañ ma wax wax yu nama ci yi ki ngay seet bu dëkk borna ba nga badar Cheikh ibrahim dem badar gi bi mu egsee badar fekk ñu wax sëñ Mayib gi mu jiite ca jakka ja Cheikh ibrahim dab nako mu rawee ko ben rak bañ noppé ñu bokk fanaan ci pénc waxtaan ci pénc mi sëñ Mayib laaj ko lu ko taxaju Cheikh ibrahim leeral ko li ko mu ne ko ñun di ci li lañ ne Cheikh Ibra Fall nako ah, li ngeen ne de baax na loolu jaamu yalla la way taxuma jóg sëñ mbey nako fananal bo xeye nga yeggali li ngay wër maam Cheikh neena bama fanane badar ci lañ ma wax yu ci guddi gëna ma li ngay seet bo ci bëgge xam lu wër dama tay ba Dakar Cheikh Ibra jall wa dama ne ki ak ni mu doon wëré ku tedd ke nitu yalla yim jaar wa ma xana kon aw yonam bo ci nee tab bi war nga xam li nga tab lu mu doon waroko koo fooyee waroo koo dinaa dik ci lan moo dig Baye Fall bañ xam ki doonu Baye Fall deug deug ta jangale Baye Fall lan la daj doro doon Baye Fall mam Cheikh dem tay ba Dakar dajé faak Cheikh Adama Gueye ak Cheikh Makhtar Touré seigne Touba yónni len Cheikh ibrahim di len xol di len xol ba gis ci ñom leeru ku tedd ci Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul Cheikh Ibra ci waxi wolof mu ne nii de bu doon jigéen a déglu bu baax mën a sëy nañ ba man ndax ku ànd ak dara ak ku ànd ak dara yomb xàmme sagam da ngay ànd doon jigéen ànd ak góor ba dara toppale ca ku lay gis xam ne daraa ngi sa kollu sa kaleew yàlla Cheikh Ibra Fall laaj leen fu ñu bàyyi ko ñu wax ko mune len kon kat damay and ak yeen setti ci ki ngeen jugge ndegete bobo kañ jugge kañ jëm mu Cheikh Ahmadou Bamba fa kooku la setti lay wër li ma lay wax nag jitt ma ñaar fukki fane yi koor Cheikh ba ñew na fa lu jiitu ñaar fukki fan Cheikh Sidi Mokhtar waxon nañu ne ñent fane yi koor la mam Cheikh ibrahim Fall ñëw Mbàkke Kajoor waye ba matee ñaar fukku nak ci la seen mam Cheikh ba joxe bopam ci ci gis Bamba motax Cheikh rafal neena suma don bag bu tab ci teena ñu lugat ko bam genn génn te ndox mu tour ko ba dëggu Cheikh Adama Cheikh Adama gey Cheikh ibrahim wax lolu ndax mom la tek talo and ak mom ñew ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul way bu dikke nak mbolo la fa fek amna ñu wax fanweer juroom ñent am na ñu wax beneen lim am ñu ne Cheikh ibrahim ñeen fukkeel lu ne man na xew lu ne man na xew de waaye sëriñ daam abdourahman lo mo wax neko Cheikh modou farma ne ko bi Cheikh Ibrahima ñëw Mbàkke man fa la mu fek ne ko sama am day Cheikh Rafal bam ñew da fété rek xam nga kañ la ko waxa keroog ba sa maam ju baax ja sëñ Saliou Fall nekkee ci wàccaay mu du nee na sëriñ Saliou Fall moo ma woo na ma seex ma ne Fall mu ne ma dama laa bëgg a wax la may yóbbu bu may dem waxtu woo déggee dara ci sama yaram nanga nga ñëw bu fekkee ne dugg si nga ci biir néeg fekk ma tëdd wetu ndijoor jublu eh, jublu penk bu fekkee ngi fekk nga ma tëdd wetu càmmoñ jublu sow na nga xam ne tawat soojee du ma ca dem nag ma wëlbati ma jublu wetu ndijoor waaye bu fekkee yoon sàngam ñëw nga fekk ma jublu penk tëdd wetu ndijoor na nga xam ne te yoon woowee laay dem na nga ma taxaw nag doom ba ma wàcc nga bokk ca ñamay yóbbu Touba bañ jullee ma ba noppi ba denc ma fooy dem nga door faa dem dégg ngaa seex seex mu du nee ma ne ko waaw mënuma lu ma la juróo tax dama laa wóor بالله الذي لا اله الا هو سين شيخ مبي يارم مو مكو واخ مي كرو ما ديغ ني ني سيرين ساليو داي دا فا ييغو يارم واي ييغو واو مي بما ديكي فكو سي بير نيك بي ما لاج ني ما نيو مو فايما ني ما دوغ سي فكو مو تدو ويتو تيامو ما جيل سا لوخو تك سي كاو مو نخي فنا ما كوكو شيخ مو نا مو واو غور خنا لما لا واخو نا مو نا مو جوتو غور sa maama xam li xew ki xam kañ lay dem mais ma tàggatoog moom dem ba déggaat yeneen jëmmi jamono ñu ne ma kaay seet si sa baay dalay laaj mais bi ma dikkee bis fekk ko mais mu tëdd wetu ndijoor nee na bopp baa ngi jublu penk nee ma jël sama loxo teg mun a xefet na maa kii u seex mu doo mën mun góor doom xanaa la ma la waxoona ah, mën a mun a ma defal la ma la waxoon doom nee maa ko taxaw maa ko taxaw nee na ci samay loxo la sëñ Saliou Fall wàcc liggéey Cheikh Moudou Fall nee na ci samay loxo la maam Cheikh Ibrahima Fall wàcc liggéey nee na ci samay loxo la sëñ Mourou Moussa Fall wàcc liggéey Cheikh Moudou Fall nee na keroog dama koo taxaw ba Serigne Saliou Fall dem nee na bañ ko yóbbu Touba ca ña ko doon yóbbu ca laa bokk Baye Naar Fall ca Daaru Xafoor moo ma ne keroog oto oto amul. diggante daaru xafoor ba Touba dañoo yanu sëñ Saliou Fall mu ne ma doom ci ña ko doon yanu ca laa bokk mais bi ñu egsee sëñ daam Abdourahman loo sant sëñ yaaram mbay mu taxaw ko waaye sa maama waajal bokk benn mooy ca daaru xafoor la jël ay ganaar jox kenn ci soxna ya Seex Ibra yoroon te gannaaw Seex Ibra ñu jox ko sëñ Saliou Fall muy soxna Njaay Njare wajur soxna um wajur soxna Asou Fall ne ko ganaar yi damaa bëgg nga waajalal ma ko reer bu baax ndax sëñ daam Abdourahmane Lo daf may gane si tey te moom laa bëgg mu xéwloo ku nekk te sëñ daam gane si gi mooy daa war a taxaw si sëñ Saliou Fall sama am joxe ne reer ba door a sama am joxe ne sëñ sëñ daam Abdourahmane Lo doon doon doon xéwloo ca pis ba muy taxaw si sëñ sama ma ko joxe door a beneen bi ci des mooy sëñ Saliou moo waajal boppam nu mu waajale boppam keroog bañ koy waajalal kër guñ ko denc lépp lu ñuy gas ci biir kër gi bi ñuy gas xaalis bu baree doon génn billaahi lasi laa ilaaha illa huwa Seex Mbay yaaram nee na ma sama way ju soxna Ousseynou Fall daana ma woon 15 boo am ci nafaam la ko daa denc ca xaalis ba la bokk xaalis boobee doon génn ci kër gi ci bàmmeel bi ñu ko doon gasal xaalis boobee lañ ko jëndale càngaay yi sa maama waajal boppam waaw Seex Fall naa doom Saaliw du gone Seex Ibra ne bokku ci aadama ak awa Seex Ibra ko ci aadama ak waaw te te jinni ji gënoon mak ci jinni yi ëpp ëpp ëpp lu lu mu dund guddou fan sëñ sama am ne mako ko mag di doom sëñ Seydou Fall ne mako mak nga xam ne lii dund daru ko yef u fa massa nek mana massa jaaxal nit di jinné sëñ cheikh Fall dana la dàq boo nangu ta dem mu rendi la xamna ko ci magni daf ko ne bu fajare ñëwal ñàttal ma ki fi ëpp doole ci fi dama ko bëgg a rendi tey ci fajare fajar la ko rendi ne mako ko ñaar di sikkim bay buudu sama ma ko rendi kër gu cheikh rafal mos a dëkk sëñ Saliou Fall la fay dëkk jànkoonte la fa ne cheikh rafal ba fa dëkk sa mama da sancal cheikh rafal sëriñ Saliou Fall Cheikh ibrahim am ku toll nonu nak nga xam ño bokk ak bay mu mata waxtane lol nga xamé ci mom ak bay Fall xam Cheikh ibrahim moy kan ak lan modik bay Fall tambalé naa ci Serigne Saliou Fall momé nga xamne ne melaw bàyyi fàll wa mo moo feeñ ci jëmbam ba ku ko masaana gis xet même ko korok bim mu ci daara ji ci ku tedd ci cheikh ibra fall ba serigne touba cheikhul khadim serigne touba cheikh ibra sar njaañ na ko booleel waaw ponkal momu nga xamne serigne touba neena yalla yàlla ko bëgg lo mën na bëggal ibra sar njaañ na ko bëgg waaw jerejeuf te Cheikh ibrahim Sarr kat na ngeen baye xel ne domam dañuy wax mam hadisar, Cheikh Ibra la ko joxoon am na caag Cheikh ibrahim ben dom bu ñuy wax soxna picci Fall soxna Jaara Buso la ko Seera Fall tuddee sa baye ko yoron sa ñëpp ndakaw sa mam mamama ko yoron sa ñëpp ndakaw kon Cheikh ibrahim ak Serigne Saliou Fall rakkam jooju kon xam Cheikh Ibra Fall ak xam dëgg-dëgg Baye Fall mooy lan doy na sëkk nga teg sa maam muy sëñ Saliou moo ko Cheikh Ibra bokk ndey ak Baye ba pare toppe ko toppin wu kenn mës sa gis ko ko toppee sa mag nga jógee nag nga jóge nag ci ci ci ci ci Cheikh Ibra nag ci deretam mooy ci rakka ja nee léegi dikk ci defar gi ma bëgg nu xam dëgg dëgg digg dëgg Baye Fall bu la neexee beral Cheikh Ibra Fall ñëwal ci defar gi xam nga jóge naa ci sëñ Saliou maa ngi ci defar gi dama bëgg ñu ber Cheikh Ibra ba ca kanam ñu door ko waxtaan yi waaw problème bi yëpp ñoo ko teg suñu bopp combat bu mag la ñuy teel a bëri hmm? combat bu bi la ñuy a bëri lool dama bëgg ñu ber ko ne dikk ci defar gi ba ñu xam ne Cheikh Ibra amul moroom Baye Talla Niang mu Baye Moussa Niang Koll moo jëriñ ni sëñ Modou Ablaye Fall Ndar moo ma wax ci làmmiñu boppam na ma sama baay sëñ Moussa Niang Koll jëwriñ ni Seera Fall jëwoon ca njaareem ndax Cees la jébbaloo ci Seex Ibra waaye njaareem la tarbiya Baye Moussa Niang mbërum làmb la woon dëkk ba ñuy wax Sile kan la bàyyi ko ñëw fi Seex Ibra ba ko Seera Fall ne ko loo yor looy jébbal daf ko sama doole laa yor sama doole musa ñan ko lu neena may bëss mam Cheikh Ibrahim Fall diko bëss diko bëss diko bëss bu guddi Cheikh Fall jëk jëk ne na te musa musa dom mané Fall mënuma seen kilifa ci yalla bawo na fi musa ñan ko lu ne mëna ko Fall sunu kilifa ci yalla ne mëna ko mëna ah mëna ah, ko Fall ku la moy yow mëna he dom a ah, musa mané Fall mëna ma Seigne Bamba soro na yeen lool dom mëna ah, mënuma atumam jub ci ciow mo seen kilifa ci yalla Atoumane Diop ca Coŋo Cheikh Fall nee na moo ma ne mooy seen kilifa ci yàlla moo dox moom laa doxale sama diggante yéen doom xoolal seen ñii ñii ñii mooy Cheikh Atoumane mooy seen maam gaa yi bari dañ fi trop xanaa kon war nañoo xam ak Baye mooy lan Cheikh Ibra buñ dikkee ci defar gi rek ber Seex Ibra nee ñëw ci defar amul moroom te Seex Mouhamadou Mountakha won nañu ko bërki dem barki Seex Ibra Fall billaahi lazi laa ilaaha amul moroom billaay gis nga lu ñu dal ñàkk dégg Seex Ibra na ko te course bi lañu war a ber Seex Ibra Fall na le bokku ci te bërki dem moo njaay lañu Seex Mouhamadou Mountakha won ne Seex Ibra amul moroom Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na ko Cheikh Ibra moom raw nay maasam te deesu ko jot ndax Bamba ko seppi mu raw yara bi nam fal ndeysaan waaw góor

leeral na boppu jaara tey waykat wa Samba Jaara ndeysaan mas nay fi baaru jébbalam aw góor bay wax na yàlla mi ko moom ndeysaan eh, gars yi dañuy aalu waaw dafa daanu waaw dafa daanu hmm. tuwaat kan la

Cheikh Ibra keroog bi mu dikkee Mbàkke Kajoor sëriñ Daam Abdourahman Lo néna na sama Cheikh Modou Fatma nee na Cheikh Modou kéro man mi la man la fa Cheikh Rafal fekk ak mbolo mu bari néna Cheikh Modou cey samam Cheikh Rafal mom de dikke mbacke dikkee jor da fete wu liggey rek seigne dam abdourahman lo nee ku gis cheikh ibra wenn waxtu ko gis mo waxtu fajar waw ndax seigne dam neena cheikh seex ibra faal lu mu ci bëccëg gi day bay bu gudd jot mu roñ ko ko indi ne su ko roñe ba mat mu jël goj bi ak baaj bi ne ro nday neena bu noppé mu teural goj bi di balé ëtt bi seigne daam abdourahman loo nee na waxtu fajar di fenk fa ngay gis cheikh ibrahima boo ko fa gisaatee suba la ci waxtu wo xana moo yendo liggey fanaane root gaa yee nelaw banan kuret balay ganar nan kur kuréet ndax moo fexewal dawul doxi seigne daam neena na am bis nak neena na ku baax yor jakam moy bant yi mag ñi yor neena na ba ci sun bunti ne diko feug nan ndax yewu ngeen ñu na wa mu len tal ndax jang jotna sëñ daam Abdourahmane Lo nee na ci làmm ñu se sëñ nee na ci làmm ñu Cheikh Rafal la dégg mu naan sëñ Touba bàyyil doomu jàmbur yi lii nga leen di wax te wax leen la sa borom wax ñu jëriñu te nga bàyyi li nga leen booba seen maam a ngi yett buntu waaye sëñ bi ko nee ci ëllëg sa nee na saam seex dajewaat ak nee na sëñ bi di ñu soññ naan ndax yeewu ngeen ñu ne waaw mun a jub leen taal ndax jàng jot na nee na waaye Cheikh Rafal la ngi yanoo sayu mat nee na bi mu taanee sayu daf na waat ku tedd ki lii da waxoon naa la ko bii ma ne bàyyil doomu jàmbur yi lii nga leen di wax te wax li li la sa borom wax ñu jëriñu te nga bàyyi li nga leen di wax nee sëriñ bi wuyu ko de nee na ca ëllëg sa nag ba ko Cheikh Ibra waxee suñu def na wëlbit dajeeg moom nee na bi mu jub see Cheikh Ibra maam Cheikh daal di bóof nee na sëñ baa ngi yor benn setal ak ndox sëñ bi sotti ko ci seen diggante nee na Cheikh Ibra bóof sëñ bi romb ko jàll nee na ca ëllëg ca ca la décret ba wàcc xam ngeen lan mooy décret bi mooy ku fi jàngi indi woon seetal keneen ko am jotam waaye leneen a ngi fi xam ngeen lenen lan mooy mooy lan leneen loolee mooy li fi seen mam indi Cheikh Ibra Fall motax mu wax ci njaarim ne yoonu su doon ngoro la ngoro bu tasee man nañu delloo can ka ko takkoon alal ja Cheikh Ibra ko wax nee na yoonu su doon ngoro la bu tasee man nañu delloo alal ji Cheikh Ibra nee na maa njëkk a bàyyi sama ndey bàyyi sama bàyyi nee na bàyyi yàlla ma sàkk loolu na waxit la nee na jàpp sëñ bamba doom <laughs> doom sëñ bamba gor la daf ma yeewi maral la ma yàlla bu lu ma neexati neex yàlla sëñ Tuubaa Ibra Faal daa bàyyi ay bokkam bàyyi boppam bàyyi na sax boromam ngir man diglu bu baax waaye defaral naa ko boppam sëñ Tuubaa wax de maral la naa ko boromam bool naa ko ki bokkam xanaa xamoo ne yegg ci yàlla sëñ Tuubaa ci gën a gaaw waaw Cheikh Ibra xam loolu Cheikh Ibra xam loolu ndax ki nga xam ne boo ko jàppee xamoo foo ko téye waaye soo ko bàyyi doo ko yéege am na ñu bàyyi yàlla xamuñu ko. waye cheikh rofal neena japp ci yalla seigne touba ci gëna a gaaw moo tax mu ne xolal ngagn cheikh ibrahim ne samam gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla wa cheikh ibrahim wax lolu waaw góor jàpp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla wa fofu la yefi ne wa gor japp ci gor dal gor japp ci gor rek gor japp ci yalla gor motax cheikh ibrahim nak bam jeppono na daal fete wol liggéey moy lan moy bamu ñewé mbacké kadior kajoor fekkoon na daara yi di sóor mo ñëk a waadi di wër ñu diko rédé ree yi seigne abdou samad mu sëriñ son bu moonu wax ni ñetti ati tarbi yi cheikh rafal def ak seigne touba digënté mbacké kadior ba mbacké bol bu daru salam jigen soqatut ci kër gi jigen wala jigéen jigen rotu bamu ñewé mbacké bol fekk na yi di mo ñëk njëkk yàlluwaadi di wër ñu diko rédé ree ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor ba mu ñëwee Mbàkke Bool daf na na kër ga bàyyee wal naay soq ak root ak a wal boole liggéey di ko joxe loolu moo di Baay Faal foofu la seex la newoon maam seex nag daal nag jaayeen waaye diir bu gàtt nag la def ak Seex Ibra Sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor ñu ànd ñëw Mbàkke Bawol biñ dikkee Mbàkke Bawol nag mu xat ci ñoom waaw Mbàkke xat ci ñoom nag ndax boobu sëñ bi ay bokkam la fa fekk tey nag comprendre Cheikh Ibra yombutoon de déedéet moo tax lu ne daj na ko foofu ci luñ du nettali ci mbooloo waaw comprendre ko yombutoon ndax benn mooy sëriñ bi fekk na fa ay bokkam te Cheikh Ibra nangu ko jiite Sëriñ Tuubaa julli premier problème baa ngi noonu sëñ bi ay bokkam te Cheikh Ibra moom nee na kenn du dox ci kanamu sëñ bi moom am na ku ñuy wax sëñ Madoune Thiam benn tëgg la bu dëkk Mbàkke daana wax ne bis ba Cheikh ibrahim njëkkee bañ ko te seigne Touba julli koroog Mbàkke xaw naa xar ñaar nee amna bis bu Cheikh Rafal dugg ci ca biir jakk ji ku du seigne Touba do seigne Mor Jaara dong genn jakk ji seigne Mbàkke fa jam <laughs> ah voilà nee na bi ko sëñ bi ne ko dellul nee na bu toogaatee ñaareelu yoon sëñ bi delloowaat ne ba mu fa defaatee ay fan wo leen ndongal diw ñu ñaane ko mu dellu bu ñëwaatee talal rek seigne bi ñaan ba tofli rek bu tofle mu tofli seigne ko xaar xaar ndigal bis nak mu daje fa ak seen waji Cheikh Ibra nekata ci la wara a ko Cheikh Ibra ngi tok bof seigne bi daal wolu ndongali ngir ñu yaana ko mu dellu bim mu tok fetu Cheikh Ibra Cheikh Ibra ngi koy xol de waye bi seigne bi ñane bana tuf ba muy waaj a tuf seerafal fii la fil tel nako ko loru ko tedd kenn loru tegg ci kawam gam bis bobale am diggalal yéegi ko waaw xam ñaan am la am kay da nga nan indi waye am nga ne ko am lolou na ngeen ci baye xel ak talibé lolou ak lolou lolou lolou Cheikh Ibrahima ko jangalé bu lay ndey ñaanal buñ la tuflee raayoon rek waye bu tufli waye tuf nga na tuf déedéet ah waaw yow aw lor ngay soxla kay yow wi ñew raayo ko rek waye bu ci sa wosté go yow bal bo béro ñaanal sa bop Cheikh Ibrahima jangalé lolou tayit it xër gim xër ci seigne Touba lolou ñun talib yépp dañ ko wara jang ci mom bokku na ci duñ jox suñ bi aw dess bokku na ci duñ ngàntal sëriñ bi deet duñ ko wax sëñ bi bokku na ci duñ min sëriñ bi lool min ndax lo min yàpp ko te seen maam seen maam nee ak xef ñu dëkk ñu ne ko waaw mu du gis xef mag ñu ne ko waaw mu tax Cheikh Ibra ne jege gaa tax Cheikh Ibra li nga ko daal déggee sëñ bi yëpp musta dem ci sëñ bi te sëñ bi woo lu sëñ la ko woo dalaa dànd sëñ bi ba musta dëkkandoog sëñ bi ci benn dëkk amul lu dul njaarim te sëñ Tuubaa ko jox ndigal mais kon du ñëw Cheikh Ibra pare pour dëkk njaarim Cees la pare woon pour dëkk leer ci ñëpp Cheikh Ibra musta dëkkandoog ci benn kër wala benn dëkk lu dul njaarim te njaarim sëñ Tuubaa ko mais kon du ñëw di dëkk si njaarim Cheikh Ibra Cees la installé woon fa la pare woon pour dëkk ndax nee woon na ganaaru jaboot fu mu gën a wóorul lay denci coojam na ah hé sëñ Bayloo mu ne Fall mu ne ko Cees kat barab la waaw na tuubaa doom dëkk la njaari wanag la waaye Cees laa def muy saam pekk bay mu du mbay isaaree na ko Fall luy pekk mu ne ko mooy ruq bi nga am sa biir néeg da ci def sa dund Cees lay fëri góor fa lay fële Cees waaw Cheikh Ibra daan ne doom su ma doon góor yàlla kuy jeexal Cees lay jeexale waaw Cheikh Ibra koox ma doon góor yàlla kuy jeexal Cees lay jeexale hmm? fala pare woon pour dëkk de installé ma Fall daal di jënd suuf su yaatu ci maam Ahmadou Baro Njëgéen 1904 Serafal dëkk si fa ba quinze jàpp 16 sëñ Touba woo la ko mu dem Njaarim waaye pare wutoon pour dëkk Njaarim Cheikh Ibra mës ta dëkkandoog sëriñ bi yii kenn fekku ci Cheikh Ibra Fall moo di ak taalibe Cheikh Ibra tuddewul sëñ Touba doom benn jërëjëf Cheikh Ibra tuddewul sëñ Touba doom ndax nee na doom soo ko juree da nga ko yilif di ko yónni te turu sëñ Touba du ko yilif du ma ko yónni Ahmadou ba mu ñëw ma ne ko dama jënd li ma nangam Cheikh Ibra Fall ne du ma ko def. loolu kenn fekk ko ci tuddewul sëñ tubaa doom bi ci desit mooy mës a dëkkandoo sëriñ tubaa benn dëkk lu njaareem te sëñ tubaa ko woon mais kon du fa dëkk tuubaa sax Seex Ibra amu kër maa la ko wax tey amul kër tuubaa déedéet bu kër kër gii nga xam ne fa la sëñ am ni moodu benn nekk tey di seera Fall di jànnatul maa waa googu ca Baye Fall ga te kër googu sëñ Moodu Binta Fall la ko liggéey Seex Ibra da ko joxe woon pàkk yi loolu yàggul de waaye kër goo xam ne Seex Ibra ko moom Seex Ibra mës a dëkk tuubaa nee na xeexee doom Touba du dëkk ay sëg la ay armeel la ñu ne ko ah, mu ne waaw ndax ay armeel ku fa nekk danga nga def bàkkaar mag ñi ne ko déedéet seerafal na képp koo xam ne mënu goo bàyyi bàkkaar araam na ci nga ko wax képp koo xam ne mënoo bàyyi bàkkaar Cheikh Rafal nee na araam nga ci yow nga dëkk Touba dëkk boo xam ne magi Cheikh Ibra Fall yi suñu fa masaan di liggéey si nee na Baye Abdou ña nga ma ne buñ bëggaan a tuur ndox Mbàkke la ñuy dem tuura fa ndox dir si waat Touba barki borom Touba moo ma ko wax Mbàkke la ñuy tuura ju ndox waaw te ku ne xam na ne sëñ Moustapha Diagne mi mën naa seede sëñ moo demite bu daa yóbbu addiye ji ànd ak njaboot gi ak Baye Fall yi bu ñëwee ba ci buntu ko sëñ Saliou sëñ bi day wax ne yéen ñii ñu ànd ñëpp bu fa kenn tur ndox ci biir kër gi ñu ko fekkee ngi dund sëñ Moussa Mbar moo ma ne man Touba mosuma fee sànni xottu man fere sax mosuma ko fee sànni nee na ma lépp lu may lu ma yor Touba moo xam lu ma seex la mu aw këyit wala nangam dama koy denc sama oto ba dem Mbàkke waaye Touba mosuma fee sànni dara kon Cheikh Ibrahima la xam àq dëkk bi waaw moo tax mu installé woon Thiès daa di wax ne xasaayidu rahmati Cheikh Ibra Fall nee na magasin ba ñuy fayee góor ñi ëllëg nee na bunt bi kër gi ci Madina Fall Thiès la tiim Cheikh Ibra ko wax Cheikh Ibra Thiès la pare woon pour dëkk mais dëkkutoon dëkkutoon dëkkutoon dëkkutoon ak sëñ bi waaye ndigal la ko indi nag waaye wormaal sëriñ bee taxaw mu dànd ko loolu war nañ koo jàng ci Cheikh Ibra Fall ab Baay Faal day wormaal sëriñam worma yi itam day yegg ci fuñ la tudde tudd sëb sëriñ sëb sëriñ siggi hmm? ndax ku fexe ba bu ñuy naw Seera Faal di ko jaare ci yow war ngaa sant yàlla waaye ku fexe ba bu ñuy ŋàññi Seera Faal di ko jaare war nga tiit sa bopp di wa tax ma bañ Baay Faal di wa tax ma xeeb Baay Faal yi di wa tax nangam ndax sëñ na Jaw Paxa moo ma ne xalifa sëñ Ahmadou Jaw Paxa moo ma ne saa baay nee na toog naa sëñ Tubaa toog ñaari Baay fal jóge nee dox rombu leen sëñ Tuubaa nag gees sëñ Mat Jaw ne ko Mat Jaw mu ne ko Mbàkke mu ne ko ana dégg ñu di ko wax ci wàkki Ibra Faal yi sëñ Mat Jaw paxal ne sëñ Tuubaa dégguma kenn di la wax dara sëñ Tuubaa ndaxam moos ku leen dingal aliyaa doon matum sawara man shakka fi Ibrahima Fall wa fi tariqatil kamal illam yatub li si jëla yuran azaban xal mukar kon ku tax ba ñuy ŋàññi Seera Fall nga tiit sa bopp ndax Seex Ibra ci lu leer la nekkoon waaw kon yooyu ay jàngale la yuy tax nga xam lan moo di ak Baay Faal ak fan la seex ba tegoon tànkam bi ci desit mooy Baay Faal du mer Baay Faal du xaste Baay Faal du siis Baay Faal du iñaan waaw Baay Faal day gis lu lu lu baax ci moom sax laa loo xam moom bu ko doon jëndal boppam sax mu ko ma koy fàggal boppam bu moroomu murit doxee ci kanamam rek war naa jéem a ñàkk loolu ngir wormaale ko ko kon Baay Faal du xëccoo Baay Faal it du naafeq naafeq nag Seex Ibra la gën a ragal ci àddina moom ma wax leen ko tey ku ngeen dégg ñu naan naafeq la rek génn ci Baay Faal waaw man nag waxuma ci sama baay Baay Faal laag sama baay seexub diw sàngam laag diw ko seexal waxuma loolu de ndax sa baay di docteur taxul ngay opéré waxuma ci sama baay nangam la doxuma ci yooyu li ma bëgg dama li may li may leeral li may wax mooy ki jébbalu te doonum Baay Faal kooku laa wax waaw maay doomi diw moom ràkkal la fexee doon diw ko gën a wóor sëñ Fall daana ko wax Baay Faal dëgg doon naa fekk mu ci àdduna ndax Cheikh Ibra Fall la waxal bopam ne maag Bàmba li ñu indi jamono moy gëna nafiq ci l'islam te Cheikh la neena nafiq ci l'islam day mel ab jëm ci tolu dugub wa ñi min àll bi xam nañ jëmb boo ko ci àll bi da ngay def ne dugub la waye bu borom tol bi gobe nga xamne tas yakari borom tool bako fi indi Cheikh Ibra nee naafiq yi lañ mel ci l'islam naa féq yépp ngi daw làqati ci jàkk yeeg jumaa yi waaye li tax ma xam ne Baay Faal lu doon naafiq mooy lii ngeen def léegi nii ab naafiq mënu ko de naafiq mën ngeen di julli mu gën laa réyu kàll gën laa réyu mbubb soo yeexee mu jiite la waaye boo ko laajee alalam mu daw soo ko laajee dooleem mu daw la xew xel koom xew carrière xew ca stade ba ca Mbàkke ak gars yi nga xam ne sëñ Moussa ñoom xam nañ li may wax kenn noppalu leen sëñ Modou Minta ba tey noppaluwul ku xam sëñ Fallu ak mu Moussa xam na masla wuñoo kenn nooy def ba am yàlla la lay woon waaye jii ma toogal xam na sëñ Cheikh Ngounda teggi teg ca la moom yërëmu leen ci dara day miraas boppam jaay alalam def lépp ngir mën a joxe addiya loolu boo ci woy nafiq mu daw kon Baay Faal du doon nafiq ah déedéet mënu koo doon ndax la nafiq bañ du ko def ca la Baay Faal ferenku muy jëf hmm? Baay Faal du mer ndax Seex Ibra neewoon na waaj bi booba doomam moo faatu ñu dem kalaame ko tubaab bi du koo dóor ba mu dee ñu dem indi médecin ñu sulli xale bi di xool ba xam ay dóor ko rey wala lan bañ ca jógee mu ne hee hee doom gis ngeen lu ne dégg naa ko lu ne di ngeen ko dégg yéen ëllëg yéen ñi ànd ak man waaw ku di Baay Faal xam ne du nga dégg lu ne waaye loo dégg neex na loo gis baax na ca ngay dox maam Cheikh nee na lu dul Ibra Fall wasin bi doom dégg naa ko te bëggoon wasin waxal ma ko Cheikh ko wax nee na lu dul Ibra Fall wasin na bi rek doom dégg naa ko te maam Cheikh nee na bëggoon wasin doom nu waxal ma ko daan na waaye maa ko def ndax mujj jamono yegg ci yàlla du yomb ma laaj saa boroom na ko yan ñaar a gën a gaaw a yomb nit fi yow nee na suñu borom na ma tuuma ju du dëgg ak joxe ñam cheikh ibra ko kon koku ku and ak mom faaw nga dund lo deg neex na lo gis baax bàyyi faalit du yakamti du yakamti ngërëm du yakamti wërsëg ngërëm ak wërsëg ko gis mu koy yakamti du bay fal parce que bàyyi fal du denc bay fal bu sëñ bi soxla won léegi war naa jaay bopam soo jox señ bi man xam naa ko sëñ Moustapha Fall tayle def ci jumaa ji jox sëñ Fallu bu ñu àndoon Touba Fall ma ne la ñii seen maam sëñ Moustapha Fall ko tayle jox sëñ Fallu Baye Fall day tayle boppam bu sëñ bi soxlaa waaye jox sëñ bi aw des ba pare na moom nga yaakaar Baye Fall du ko def Cheikh Ibra Fall nee na doom murit day am néggandiku tan tan yàkkamtiwul Cheikh Ibra nee na tan bu dëkkoon mbaam muy sukkuraat ay at feeg ruumam lutu tan du ko laal waaye nee Cheikh Ibra nee tan ku gore la ñu naa mun a bu ruuga rotee day ay bokkam buñ dikkee ñu tànn seen kilifa na ko seetal la soob foo gisa medd ci àll bi buurub tànn bay laal ba dem te leen doon ko yëw maam Cheikh nee na murit lu mu am sëñ Tuubaa la war a njëkk sédd ba noppi bàyyi leen jox sëñ tubaa ay des ba pare na moom ngeen yaakaar te kat boo mosee loo am jox sëñ bi xanaa xamoon ne sax li dàq ci li dàq li dàq fi mu toll nii te gën a neex kii xam na li may wax te dàq maa bëgg ngeen mos ko xam nga mooy lan lépp jox sëñ bi joxe ba jeexal nga lépp jox sëñ boo ko mosoon dootoo ko bàyyi ngañ mu dàq lépp da joxe ba jeexal lépp jox sëñ boo paree nag jooy teg ci maa la wax loolu barke borom Tuubaa soo mosoon lépp jox sëñ bi dootoo ko bàyyi moo dàq lépp bay fal dëgg dëgg dëgg dëgg sëñ bi da koy jaral ay bor sax mu ñeme ko ngir sëñ waaye li ma man rek laay def ah Cheikh Ibrahima waxoon na ko mañ ñi ci gébbu faal ba ñuy gas teen ba Mor Njaay mu ne faal mu ne ko jonga ma ko ko nobe soo amee joxe su ma amul joxe doo yeggali Cheikh Ibrahima ko waaw noo yeggale su ma amee joxe su ma mënee joxe su ma mënut ba cheikh ne do yeggale han ya seigne khadim ne yàqu lay def ngoro gay tas kon seigne bi da ngay def lo man ba jéem lu mënu lolu mu dét bay fal parce que cheikh rafal kat ba mi engagé mom képp la waye fi ne ñaataa ko top kon jaayante ka tax motax ku ñaan ñak bu jëndee am li seigne mun ba def barki dem bu mu jaaxal kenn cheikh da da jënd te ba àddinay tukki nee na maag sëñ Bamba képp la ñuy tudd ci lu wér. ndeysaan. góor hmm? waaw. waaw waaw góor dégg nga li wax ah loolu leer na kon <coughs> waaw xanaa loolu leer na raasi ko jox ko say pexe moo tax sëñ sëñ Ali mu ngi may tudd léegi sëñ Mor Ndiaye tomb del góor yàlla xam nga nena la Cheikh ibrahim man nañ ko ber dik ci magni touti parce que dañu wara xam deug deug deug da lan moo di ak Baye Fall te loolu doy na ñu joxañ ñi Seera Fall defar fi ne seigne Mor jay tombu del bis bim dikke ci Cheikh ibrahim am garatu tombu del bis bim dikke fi Cheikh ibrahim ndax da ñëw fekk ñuy gas seigne Mor Ndiaye tombu del jaayante ba bënn tel bi mais bi ñuy gas teen bi bay bay dallu ba Seex Ibra timpaas wut si leen bi mu diggee tiim leen na ana ñiy tëdd fi ñu ne ko ñu ne Mor Ndiaye mu ne lu ngeen di def nii ñu ne ko dañuy noppalu du yàlla yéen ne Mor Ndiaye lu ngeen di def ñu ne ko Fall dañuy noppalu mu du ngeen am yàlla yéen ndax kuy gor kuy kuy baye ab tool su ma manee bay su ma mënul bay tool bi booy waaw jigéen ku ko yore su ma mënee joxe su ma mënut ba doo yeggale Cheikh Ibrahima ko wax de te keroog kuy wut yàlla su ma mënee def su ma mënut def doo am yàlla te te te kat ba mu waxee loolu maam si bàyyi moor daa daal di bërëngu ak xaal yi tàbbi ci teen bi te booba teen ba sori ñu ne dee na parce que Cheikh Ibrahima ko roof àll Mor Ndiaye génnal mono ko da nga ne ci bir soxla dama da nga ne ci biti soxla ndox mo ne ci bir soxla la ndox duma gën taw mom ndox bàyyi mo rak ten ba ba ten ba bënn waye bi ten ba bënnee ba fi tax cheikh nañ ma jox tok ci biti mo ra daw ci ga gën tok gi ñew tégal cheikh ibrahim na loxo yu toy dal cheikh ibrahim ci la xamé nag mën mor jaay mu ne kan la ci féré yi ko mor jaay mu ma ci ten tanduk ay goj ko waaw mun ne ma yaa génnaat te àndoog ay goj mu ne ko waaw kenn yorul ay goj mu ne ko waaw mu ne xeexee donc bi ngay xëy si ci man sa maqaama ci sama borom ci ñeent la toll ñeent quatre waaye bi nga duggee ci teen ba doom ba génn doom tomb naa sax dell xëyee ñeent gonto juróom-ñaar téeméer dell quatre la nga tomb ko muy sept cent sëñ xaadim ñoom ñi xam nañ li may wax ci kurus la ñuy yëngu <laughs> del quatre la nga tomb ko muy sept cent xoolal xëy ci maqaama ci suñ borom am quatre ci maqaama maam ñeent ci yi suñ borom ci ci tolluwaay gontu gannaaw bi nga jëfalee seerafal bu noppi mu yóbbale ci 700 juróom ñaar téeméer ci daraja sañ daana wax ne doom lu may jiñ bu tëram ànd ak reen yi lu may jiñ bu tëram ànd ak reen ya lu may ñoddi bu tëë ñëw ànd ak reen yi waaye du ma jàmbaar ka seerafa rek jàmbaar loolu lay wax su ma saan a xëy lim daa def ci kurusam mooy fukki junniy basmala ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukki juróom-ñaar su noppee jàng ñeent fukki sorti yaasin ak benn su noppee jàng ñeent fukki maraaxeeb ak benn wéri fanweer tey si rek ñett loolu comme café Touba ci mu du ko daan dékkee su noppee nag jël kurusam xoolal turum daa wér daa leen di wax turu bàyyi Mor Ndiaye tombu del yoon daa moo ma ne moo ko doon tey lima ma la wax bàyyi mor ci la da faja aajo yi comme mën doon ci àddina kurusam la yor ni djublu penko nan xolal ku dajju dam dajjo ku dajju dam dajjo ku dajju dam dajjo seigne touba la ku dajju dam dajjo xolal mba mu naan ko ke barkeb ko ke kookee ko ke yi la da wird ñaari ñaari tur yi la bàyyi mor daa wird ci la da faja aajo ku dajju dam dajjo ku dajju dam dajjo ku dajju dam dajjo

borom Touba yow ya mata bëgg mata wut yow ya, kulam falu di bur juge nga ya, yow faawu ci suuf do dellu yow ya, mukki fi suuf fe nga sa sape ka soof ñam nga wudu na bëgg xoor xuur ngay ta santulu top ngay to topulu sopp nga it te soppulu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën a sës ci buur yaa mën a saytu gaayi buur bégal nga buur a gaayi buur ñëpp ngi bég ci yow buur ndaka ma xam ne duma góor yër ba xam ne yow rek a di góor si laa ñëw na la jaajëfe góor saw de sa tax ñëpp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf kenn du dara yaa di lëf yaa di dara sëriñub Cheikh Ibrahima Fall làq nu bu nu dóor tey ak ëllëg bu nu nu sunu ko bi bi nu ko dóor borom Tuubaa ngi fi yow di safiliir tey ak ëllëg bu nu daan sunu kogit bu nu ko daan te kogomit bu nu ko daan musal ñu ci kuur yàlla nu yàlla yërëm tafaw may ñu ngërëmam fegal ñu ci ak mooy ndigalam teg ñu ca kaw tey ak ëllëg na nga nu yërëm na nga nu gërëm te nag nu far nag nu xorom fegal nu gàcca may nu ndam te boy nu ay mujj gu rafet Cheikh Ibra Fall amaana waaye di la jeex si téere mbaa jamonoom allahu yàlla noppi na kii ci yàlla Cheikh Ibra Fall doo julli doo woor ñu may la sooroor ba sut fa kër buur ci yàlla Cheikh Ibra Fall mu fekki sëriñ bi lëm mbiram te kenn du mos ci baatinam lu dul ca bis ba nii texe bu dul woon ak làmpam bi nii ci sunu biir xarnoo Cheikh Bamba badoo si lëndëm gi nii raw nu Cheikh Ibra Fall mënu ko niital xàll yoon bi joxoñ ñu ko bu dul woon ak Cheikh Ibrahima Fall musiba naaru lay danlu kon ñëpp sawara leen jëm sëñ Mamour mii day kilifa mu ngi wax di ñaq di fomp rek ñaqam mi laa bëgg bu nekkee bëgg na waxtaan bi man xam nga mën naa koo yàq ndax damaa doon dara ci yëf man suñ bee ma tànn ku bëgg ak ku xari loolu suñ bi def na ko damaa bëgg jox addi suñ bi kilifa la ay junni kilomètre la naaw tegal fii tegal fii damaa bëgg na ñëpp ñëw joxaat ko addiyee borom Tuubaa kilifa la ba pare di wax di ñàkk di kii ngir ñuy bëggal ñu toog di siicu rek nañ ci ne wala ñu bàyyi ñu ñaan waaw bàyyi yitteem yëpp jóge France jaar Turquie ak yëf yi ni na ñepp ñew waaw ñu li ko njëkk jox waaw li Moustapha Diagne jox li ko jox da dajale jox ko mom rek dama bëgg jox ko mom da wara am mom ndax wax deug fa yalla nek da yor njabot do dem waaw na ñepp ñew wala ñu ñaan ñu def ñu def leen rek xini gi mu jeex ñew leen bismillah ñew leen wala duma joxaat micro bi wala ngeen ñew duma ma jël micro bi waaw tabarakallah

mat a bàyyi xel te Cheikh Ibra Fall dafa doon koo xam ne ci fii jamono toll dafa mat a waxtaanee ndax pour ñu xam sëñ bi dëgg dëgg dëgg dëgg Cheikh Ibra gën a gaaw loolu sëñ taxaa junj nañu ko ba ba muy woote bis bi dafa wax ne dama bëgg sant suñu borom ci boole gi ma boole ci sëñ Touba waaye dama ko bëgg a njukkale maam Cheikh Ibrahima Fall waaye turu yàlla nag laa sox laa bëgg xam naa cër ci maam Cheikh Fall te Cheikh Ibrahima nee na turu yàlla dama koy noyee waaw dama ca waxtaanu Mouride Sadikh jërëjëf sëñ Mouride Ablaye ko nettali waaw nee na Cheikh Mourou Moussa Mbacke fa ñëw gannaaw bi sëñ tubaa demee Cheikh rek gis ko tudd yàlla ca kaw. yónni kenn ci mag ñi na ko demal ca Ibrahima kan ne ko dollar ba ma ko dénkoon ca ndànd na la ko jox ñu dem bàyyi dollar waaw dollar na ko jox dollar ba ma ko dénkoon ca ndànd na la ko jox ba Ibrahima kan la yónni la yónnee ci moom ne ko nee leen Ibrahima kan Cheikh Ibrahima wax de ne ko dollar ba ma ko dénkoon ca ndànd na la ko jox mu jox ko ko mu jox ko Cheikh Modou Moussa Mbacké ne ko tudduma yàlla fi yow dama koy noyyee loolu la ko wax tudduma yàlla fi yow dama koy noyyee. kon Cheikh Ibrahima Fall danaa noyyee turu yàlla moo tax sëñ Muntaxa jagleel turu yàlla maam Cheikh Ibrahima Fall mun sëñ Muntaxa ay sëñ Tuubaa nag nga xam ne lii mu def man leen rek la may fàttali mooy 1963 bi jumaa ji yeggee sëñ Fallu na ku xam nu ma koy tuddee ñu ne tekk mun a sama baay Cheikh Ibrahima Fall ngi nii loolee ñëwaat kon sëñ Muntaxa daa xam li xew wér waaye nag sama boroom dajale ko jàmbaar jii di sañ am ni Moodu Mbenda di Cheikh Ibra Fall soxna Fall Mbenda moom gannaaw bi nga xam ne jox nañ ko maam Cheikh Ibrahima Fall daara ju Cheikh Ibrahima sa sanc soxna Fall Mbenda liggéey na fa liggéey boo xam ne ràññi ko na ci yoon bi ñëpp di ko waxtaanee sëñ di Naar jenn doomi sëñ si doomi sëñ Naar mu Cheikh Baara jenn moo ne kenn ci mag ñi nee na ko fekk naa diggante Cheikh Issa ak Cheikh Ibra ca ndànd boo xam ne ci jotaay ba maam soxna Fall benn laa fa xàmmee moo doon berndeel ko seex Issa ndànd nga xam ne sëñ Issa ak Cheikh Ibra Fall la daje ndànd lu dul ganaar bu ko sëñ Issa masaana den rend ci këram Fall rek Cheikh Ibra Fall la ko yónnee wala jaxasoo googu amoon ci seen diggante maam soxna Fall benn newoon ci daara jooju moo tax bi ñu dee ba 1904 ca Tasineer sëñ Modou Mbène Cheikh Ibra Fall ne ko benn la waaye dana barkeel Moodu Fall mbenn népp layu la mel mbiram du yem fenn te tey yegsi nañ ci ndax sañ am ni Moodu mbendaay Cheikh Ibra Fall kon dana barkeel ji yegsi nañ ci ndax barkeel mënut a weesu kër see Ibra Fall gépp topp ci gannaaw sëñ am ni Moodu mbenda <laughs> tey mooy Cheikh Ibra waaye mu amoon cër bu yaatu ci bàyyam Cheikh Ibra Fall moom sëñ Moodu mbenn moo doon sëfooru bàyyam moo doon bëkk néegu bàyyam moo nekkoon ci wetu bàyyam sëñ Modou benn kenn fekku ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra ko yar ci loxol boppam Cheikh Ibra ko jàngal Cheikh Ibra ko tarbiya waaw sëñ Modou Mbenda bàyyi ma Samba Diop kokki sëñ Ali Fall Mbawar daa ñëw ci kër gi di siyaar si bàyyam Cheikh Ibra Fall nee na guddee fa sëñ Modou Mbenn taal commune Kaaru Serafal ba di ko yóbbu ne bi oto bi tàkkee Serafal na bëri ne ku taal oto bi ñu ne tekk mun naa wóor na ma ne Modou Fall Mbenn daa yóbbu Aliou Fall daan na waaye damaa war a këpp oto bi de ba mu yàgg mu muñ naa kon de su ma ñàkkee oto ñàkk ñaari doom loolu njaarim la xewee moo tax cër bu rëy am ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba waxoon naa fi ne. ñi ko mag ci kër Cheikh rafal Fall nag ci sahir bari na ndax sëñ Modou Mbenda ci sëñ bakki Xari la topp kon sëñ Modou Moustapha la ko mag sëñ la ko mag sëñ ali Fall Mbora ko mag sëñ assan ko mag sëñ Fall dara ko mag kon sëñ Abdou Sakor ak Ngunda Debbo sa waja rek lay wara mag ci kër Cheikh waaye ku du sëñ moomu saafaal moo la magi doom waaw maa la wax loolu de ndax sëñ Cheikh Modou Mbenn mi taawam yaakaar naa gisuma ku ko mag ci kër Cheikh Fall ku du xanaa sëñ Cheikh jëm laa yaakaaroon ci moo koy mag te duñ soree loolu ab cër la bu ko maam Cheikh Ibrahima Fall jagleel jërëjëf jërëjëf tey sëriñ seex jëm di jàmbaar joo xam ne yan bi gannaaw sëñ Modou Aminta moo tax ma xam na sëñ Cheikh jëmu ponkal la barke borom Tuubaa sëñ Modou sëñ Modou Aminta ko mën a wuutu mu dox doo gone sëñ Modou Aminta ko mën a wuutu ba pare mu dox barke borom Tuubaa ponkal nga doo gone sëñ Cheikh jëmu ponkal la oh kooku kooku kooku kooku yoon wi dafa mat di waxtaani saa su ne sëñ Cheikh jëm may jàmbar barke borom Tuubaa xool sëñ Seex jëmb li mu ci yoon wi toog muy dox barke borom Tuuba demul Europe demul Italie demul fenn demul Ndakaaru génnul Mbàkke toog la def muy dox barke borom Tuuba toog muy dox moom boo ko moom bu ko commentaire mukk demal Mbàkke rek foofu mu toog fa la toog millions yeeg lépp yi ñëw ñamu Tuuba ndog yi sëñ Seex jëmb sàncay millions yeeg milliards yi sëñ Seex jëmb stade bu Mbàkke bi Serigne see jëm lim réagir ci fukki at ak juróom yi waaw Serigne Cheikh jëm may jàmbaar barke borom Tuuba xari tabaski yi xar la mujj joxe ci koo xam ne bu yàggu dong peesal na ndawal tabaski waaw avant muy doon Cheikh Ibrahima am na bis boo xam ne amul gàtt bu mu ndawal la peese ñu teg ci at yu néew mu doon seerafal joxe junniy xar lool ay yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi sëñ am ni Moodu Mbend yàgg maanaam journée journée si laa bii oh Cheikh Ibra ko ko dencaloon moo tax yëf yi du du hasard lu xew rek mbir la Cheikh Ibra ko ko dencaloon na ci ayam ci ayam bu ñëwee lu réer na am waaye xam nga ne bis bi bis bi bis la de bis bi di tudd yàlla 24 heures di gën a yéeme nag mooy. Cheikh Ndoye mi nga xam ne temps bi mu jël kenn jël ko sax daa xam ko mooy suñu njëriñ ndax suñ ko xamul lu ñuy def ba mos ci sëñ Touba duñ ko xam te Cheikh Ibra faala ñu won yoon wi ñuy mën a jëriñoo sëñ Touba Cheikh Ibra nee na yoonu sëñ Bamba yu doom may royukaay bi maam Cheikh ne ku ma jékki weesu ma digg ko ak si doom maa ngi daal di wax ne ku bëgg ci lii sëñ Bamba am man Ibrahima Fall ñi ma def ngay def. daal di wax ne da ngeen ma xool bu baax xàmmee ma Cheikh Ibra Fall nee na bokkuma ak sëriñ si nga xam ne yomal xiyam yàlla day soppi seen xarkanam ba kenn du leen xàmmee ëllëg nii ngeen ma xamee doom nii lay dekkal suuf du ma lekk Cheikh Ibra Fall la ko wax waaw ne suuf du ma lekk doom Cheikh Ibra ko wax sëriñ bi mas na ko ne Ibra Fall bis tey xanaa xamoon ne mën nga maa bañ a gis te du wàññi ci li nga am mënees na koo xayma waaye bi ci seen la ko tegee piram yamatul hmm? nee na ndax mas ngeen gis doom laaj naa leen jinax Cheikh Ibra nee na a gis jinax ju dégg jam ci ñag ci àll ñu ne ko déedéet maam Cheikh na jinax ñag bu mu gis àll bu mu gis nu ko neex la cay bërëngoo ñu ne ko waaye waaw mun a waaye rab bu ko toppandoo des ca ñu ne ko waaw Cheikh Ibrahima ne jinax daa am lu muy misaal ñu ne ko faal jinax lu muy misaal mun a lëggeel sëñ Bamba lay misaal ku ko def mucc loo def mu jig la loolu génn ci seerafa la ko maa ngi jéglu bu baax maanaam fi mu nekk nii xam naa ne jàpp na leen mbir xam naa fi ngeen fi mu nekk ak yéen baax na waaye liy duf si nag bépp daa xajul si cin li sëriñ bi mi ngi fi talaata mi ngi fi alxames ci daayira sëriñ tubaa gi te am na lool bu nu toppee waxtaan bii léegi jataay bi jeex te am na ay mbokkum taalibe yi fi nekk wala barkelo ci bis bi bu ko defee rek moom mii dañ koy may mu waxtaan ñaari minute su ko defee bu talaataa ngeen fekk ko ci kër sëriñ Touba gi wala bu alxames ngeen ñëw ca kër sëriñ Touba gi ñu wéy la fa jataay bi ndax lépp xajul fii fi mu toll nag ci waxtaan ak Cheikh Rafal di ko dog sax maa ngi ciy tuub bu baax ndax Cheikh Rafal nee na rek dégg nga maam dara da ca xajul waaw tey bu nu gëmee Cheikh jëmmi Serigne Abdourahmane Fall tilaa la moo wax moo tax barki maam Cheikh Rafal te Serigne moo lu gisee sama mbokkum taalibe dafa ma wax lu bari ci moom ma bëgg nag ku baax ñoo ngi jégg lu baax ci jotaay bi man dama laa bëgg ngir ni nga def sama Serigne muy Serigne Abdourahmane Fall tilaa la man moom rek la gëm. barki maam Cheikh Rafal ma seetaan say vidéo nga wax ci moom lu doy waar ma koy seetaan ci réseaux sociaux yi ba nga teew tey mu fonk la lool kon nag jetaay bi bay am di danay joxe daja ba kër ca kër sëñ Touba ga ñu woyale ko foofu léegi nag da ñuy may ñaari minutes rek bu ko defee ñu jox sëñ bi mais ak sëñ kii ñu woyale jetaay bi Ousseynou mën ngaa génne xiin yi nga teg ko nii ñoo ngi tudd bu baax waaw waaw waaw góor <laughs> jërëjëf jërëjëf ndeysaan waaw tubaarkàll jërëjëf waaw xiin yi waaw xiin yi baax na waaw ndax bu xinu du taw waaw bu xinu du taw waaw misaal si ah, ma bu taw waaw góor waaw kay waaw kon xam naa <coughs> eh, dañuy damay damay jaajëfal nag sunu mbokk soxna yii ndax ndax kat ndax kat damay damay damay dama bëgg ngeen may ma tuuti rek ma ma jaajëfal sunu mbokk soxna yi ndax nag ay jàmbaar lañ doon ndax njàmbaar tax ñu ñëw nii toog fekk ci bis bi te wóor na ma ne loolu lañ yendoo ci bëccëg bi ñii nag Cheikh ibrahim ñu leen joxañ waaw Cheikh ibrahim toog fa njaareem ne he he doom ay yéen góor ñi yéen kat doom yàlla rek ngeen am kon nag doom na ngeen ñukku jëm ci yàlla ñukk mooy doxin wu dëgër mooy ñukku ñukk ñukku ñukk na ngeen ñukku doom jëm ci yàlla jigéen ñi itam doom yéen rek lañu am ah doom ku ci nangoo ànd yéen ñukku jëm ci yàlla dinañ leen dimbali doom di leen yërëm di leen teete ngeen ngeen ànd ak ñoom ñukku jëm ci yàlla waaye Cheikh Ibra Fall nee ku ci nanguwut ànd yéen nag ñukku jëm ci yàlla nee leen ko fa ñukku yéen te ñukku jëm ci yàlla seen maama ko waxoon moom ko nangoo ñukk ñu ànd yow ñukk ku nanguta ñukk ñu ne la fa ñukk rek ah, seen maama ko waxoon kon comme nangu nañoo ànd ak ñoom ñukk jëm ci yàlla nañ leen jaajëfal te sant leen ndax kat ñii see Ibra bari la woon na leen lool waaw ñii boog am na sax ku ko mas a sëriñ bi na ko dégg naa Ibra Faal waaw bi mu tàmbalee jataay bii daa wax ay secret yu bari dem ba war a tëj tëje leen damaa yaakaar ne nag am ngeen ndimbal waaye day li bàyyi ñaan la doon wax olof day dégg olof ba si yàggu dégg olof yàlla na suñu borom damaa bëgg yéen waxuma benn góor yàlla soxna yi laa wax kenn ku ne jëkk jox ma addiya ndax lim lim tudd Cheikh Ibra yéen jagleel leen ko loolu moom ëpp na Cheikh Ibra Fall lu mu wax noonu la demee ndax jubóon ak boromam waxuma kenn ñëw soxna yi benn par benn wan bàyyi wan ku ci ne ñëw jox ma dee ma jox ko mu yeggale lu ko may ngeen ne ngeen ñu ne ñukk ba leen fi rek ñëw leen ñëw leen soxna may képp laa gisagul mu ñëw benn par benn mareem abi kenn jug leen te ñëw ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom asoog ñëpp saxam yéen la tëjee jataay bi loolu taw féex la ñëw leen bis bee laaj loolu ay jàmbaar dëgg lañ moo tax ma woo leen jërëjëf ndaw yàlla na sama borom gën leen a dëgëral Birane jërëjëf sëñ Fatou ñëw leen ñëw leen lii mënut a ñàkk <laughs> ñëw leen mu kii su ko defee mu ñaanal leen ñi nga xam ne yëf fii xaw naa kii bay faa kii ñi kii ñu kii affaire yi daal di kii mu daal di kii waaw <laughs> bismillah ñëw leen ku bëgg daal balaa bis bii ñu koy def déwén maam nga kii ba amub Cheikh Ibrahima Fall wala Soxna Jaar wala Serigne Saliou yu ñëwal ku bëgg xaar nag ñu kii bismillah waaw leen kumba jërëjëf jërëjëf sëñ Mamoun kon waaw waaw kon kon kon loolu loolu moom ñoom loolu Cheikh Ibra Fall moo leen ko waxoon te te ñoom ñii Cheikh Ibra leen a bari la woon ndax am na am na am na kuñ ko ma a kalaameel am na ku mas a ñëw fi sëñ bi ne ko Ibra Fall ñam dajale ca këram dañoo bari ba ko sëriñ bi wooloo laaj ko daf ko ne ñu ma ñu la àndal képp di la liggéeyal laa fa dajale sëñ bi na ko demal loolu mënesu ci am doy mënesu ci am lu doy waaw waaye ñoom ñii Cheikh Ibrahima da leen a bari la woon ndax maam Penda Njaay Jóob maam dëgg jib na taal maam Fatou Gueye Mbagnick maam yett gën ñooñu ay donga la woon ay muritu Cheikh Ibra Fall ku ñu wax soxna faatu Gueye Mbagnick mas nañoo togg ci kër Cheikh Ibra togg ba ndawal li ba seppi des ci ñu wër kudd cunguwaar guñ seppee amuñu kudd cunguwaar Cheikh Ibra Fall dégg ñu naan kudd cunguwaar guñ seppee mbana yi de moo fi nekkul maam Cheikh na gees na xanaa Fatou Gueye Mbagnick niwut ci kër gi mën a bëri ca soxna ya na ko maa ngi ni defaal Seex Ibra na ko jëlee sa loxo bi nga yeb ko ci mbana yi nga seppi ndaw la yoo dool ak fii dool ak fañ jëm mu daal di wog loxoom bu tedd ba di seppi ndawal li maa am ne diw gaa ngi sens mu jël loxoom ba di ko yàpp ci diw gi di seppi benn par benn di joxar bi Seex Ibra naan ko du ma fii du ma lakk fañ jëm tafaal xam nga ci dara <laughs> du ma lakk fii du lakk fañ jëm tafaal xam nga ci dara kooku jigéen la woon ci kër Seex Ibra Faal kon cër bi leen yàlla jagleel Seex Ibra moom xam na ko moo tax ñoom doo ngay laxasaay gis nga Modou yaa jee moomu ñuy wax soxna jee faalum sëñ Modou Moussa Fall la doon murid ca Touba Fall waaw jee sëñ Modou Moussa Mbacke yoroon na ko moo yar soxna maam say Fall mii nday way jur sëñ aboom sëñ Fall soxna jee la yaa jee ñibbil sa kër bàyyi ndax ngërëm nga doon wut am nga ko Modou yaa jee moom Cheikh Moussa Fall la nekk nekkaloon waaye soxna jee la nekkaloon ca Touba kon soxna yi dañuy ay jàmbaar ah sëñ Xaadim nag noo ngi lay ziar bu baax mi ngi may fàttali bi ñuy gas raay bi bàyyi koo njëriñ jëm Touba waaye loola muy fàttali war naa tax ñun ñi ñëpp ñu xam ne Cheikh Ibra Fall daal liggéeyal Serigne Touba ba bis bi muy dem sax ñaqal na Serigne bi ndax li ngay fàttaliku sëñ Xaadim mooy Cheikh Ibra am na 75 ans di ñaqal sëñ Bamba ndax bi muy mujj ca ngasum raay ma bisub talaata la te ba talaata ci dellu see altine ci guddi gi la saam Cheikh wàcc liggéey Cheikh Ibra guddik talaata muy altine ci guddi. di la 3 juin 1930 ñett fan yi tam xarit te njëriñ ci la saamam seex wàcc liggéey ci teewaayu Baye Seex Ñang bàyyi Seex Jaw bàyyi Baye Waseynu Ñang Baye Seex Modou Fatma Fall Serigne Bassirou Mbacké kon Seex Ibra Fall daana wax ne wàcc biir bàmmeel laa ci xamoon waaye ne ci kaw suuf du kon koom naa wàcc naa ñu Ibra Fall xamul loolu kon Seex Ibra musta wàcc benn yoon kon am murid du wàcc jàmbar dëgg Seex Ibra ne day bàyyi koo ca jàgg ba dem ca wa dem day bàyyi koo ca waar wa dem ca jàgg li ci des nag mooy noo ngi sant comme xam naa noo ngi fi ba le huit incha allah xam naa am na ci loo xam ne nag am na yenn benn benn murit yoo xam ne sëñ ngeen mi xam na li may wax ca Sénégal doon nañ ko sàkku te booba sax xamuñu woon ne danaa fi ñëw waaye loolu moom bis ni ki tey jeex na mooy bis ni ki tey ku ko masoon a aajowoo ku ne jàpp na sa aajo faju na benn mooy li nga xam ne bàyyi seex ndaw ci boppam la ko seex bi dénkoon te mooy loo xam ne ci dundam mbooleem ku mas a dajeel jamono yii moom fexe na ba jërëjëf ku masa a dajeel jamono ndax mu ay bagaasam ci posam la ko daa def amul boo ma fekkee ci kër gaag da nga fekk suñ bi ci nanggam nanggam tax mun daa taal ak nangam nangam déedéet bay suuf daw dox ci yoy waw bay cheikh mom cheikh ibrahim nako won defal na la dekk bu jent bi tim moy tol ci yow da ngay ba sa taxaw lu jeex kon te lu gatt gatt nak hau xawna ca bok ak moom dara ndax ñet ñi mag ci njabotam ka wax am di mu taw taaw wax fa lu top ca baaraa ca top tu mu jur te kii xam na ne ki ko fi nekkal saa su ne benn kàddu lay saxal sama nopp yi mooy la Cheikh Ibra Fall dénkoon sa maam muy mission ba moom ci say loxo la ko yàlla teg la ma ca am nag man damaa yéene lu ma am bokkoo mbokki taalibe yi bàyyi seex maanaam nit ndaawu ko jox loxo jox loxo nii rek dong laa la wax de tële la dab ci àddina mbaxanaam moom daa sol muy tengaate ba murit bii sax ay yoon junj na ma ko na ma indaale ko bëggoon naa ko indaale nag man maa ngeen moom kum ko masa kum ko masaana dëpp dootoo tële mu ko ci àddina ah, loolu moom waxalewuñ ko sax moom bàyyi seex moom dalee koy garanteel bana la sax li gën a yéeme mooy bu la neexee nga wékk ciw seen miñ ba xam dana daanu xam loolu gën a garaw waaw waaw léegi nag léegi am na lu gën a gaaw loolu waaw yéen kay xaaral ma noppi yéen rek léegi nag len lu ci nekk nag jëmmi Cheikh Ibra rek a tax ma di ko def du dara ci àll du dara soxla ma ci dara Cheikh Ibra rek waaw jërëjëf léegi nag ku masaana dajal ngay jigéen moo xam nga bëgg am borom kër wala nga am borom kër te am doom daa la wax de wala nga am lenn ci feebar bu nekk yow manam bay cheikh bay mustapha sek moma ne soxna sangam xam nga ko mané ko waaw monama fatuna na bay cheikh dekkil ko to soxna sa jox togal na ma maañ gannaaw bam dekké dekkee loolu gën a gën waaye bu mu jaxal ken ndax ku ñaan ñak bo jëndé am té ñom sañ-sañ lañ yoroon te Seex Ibra doon woné bopam ci seen jëm motax li di muy new katan li di li ñuy woyé ay nan loolu ay fari rap laak yoyu gis nga yoyu billahi barki cheikh Ibra médecine traditionnelle ñii ngi yëngu ci yooyu fi mag ñi yeggoon ci ci faj ak ci ñaan dara mu sotti gaa yi yëpp yëguñu ci sungu fi yeeg reen yi barki Cheikh Ibra Fall la wax gaa yi mag ñi duñ ko sax laal am nañ lu gën a gaaw xanaa xamoo ne ajo yi ngeen yor guddi tey gii bu leen neexee kenn du yóbbaale ajo dafa juum waaw waaw waaw waaw maanaam ku bëgg sa aajo faju li may wax nag dama koo xam ndax dama damaa xam moom mii barke Cheikh Rafal ku mas a jox dërëm bàyyi Cheikh Ndaw dërëm bay wax ak moom te ku bëgg nag sa aajo faju dërëm bi wax ak sëñ maamu Ndaw mii fekk nga jox ko addiya barke Cheikh Rafal barke matlabul fawzayni bi nga xam ne maama moom la daan wax wa ansiralil xalqi wa rasaaya wa jinni wa saytaane wala balaaya aca maanaam ku ko ku ko def nga xool sa bopp balaa déwén nga xool barke Cheikh Rafal waaw aca ku tegoog moom loxo barke Cheikh Rafal sa aajo faju jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul Muhammadu ya Rasulullahi yàlla borom jaam ñi alayhi wa salama bur yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu ya rasulullah borom jaam ñi alayhi wa sallam allah allah abdi abdi